eyaw xarit xaritoo am na àndandoo am na waaye jamonoy tey jile àndandoo gën a bari lool yaay xarit xaritoo am na te àndandoo am na waaye jamonoy tey jile àndandoo gën a bari lool li ma gis jamonoy tey bànneex ñëppay teew waaye bis boo amee naqar doo gis kudul sa yaay booy kon xari xarito am na àndandoo it gis naa ko waaye jamonoy tey jile àndandoo wa gën a bàyyi lool li ma gisati ci jamonoy tey boo ñàkkee ñu ne xamuma ko woon am ñu ni moo ne xamoonu naa ko adduna metti na yaay kon xari xarito am na àndandoo am na nay waaye jamonoy tey jile àndandoo wa gën a bari lool li ma gis ci jamonoy tey booboo ne ñu ni doomu diw boo baaxee ñu ni suñu doom def lu baax am njariñ yaay kon xari xaritoo am na àndandoo am naay waaye jamonoy tey jile àndandoo wa gën a bari lool ñoo daan àndu ñoo daan foo tey mu tekki rek dem bàyyi ma ñoo daan àndu ñoo daan foo tey mu tekki rek dem bàyyi ma jàppee ma ni bay ma xarit sama yow li dafa ñaaw kon xari xaritoo am na àndandoo am na waaye jamono yi tey jile àndandoo wa gën a bari lool léegi nga daanaan daal ba mi naaj muñ ko te xam ni ker dana ñëw ci nga daanaan daal ba mi naaj xam ni ker dana ñëw ki nga daan àndal yow ba mi naaj muñ ko te ni ker dana ñëw paap ki nga daan àndal yow ba mi naaj muñ ko te xam ni ker dana ñëw abdu ki nga daan àndal ba mi nuñ ko te xam ni ker dana ñëw sëñ Mbàkke ki nga daan àndal ba mi naaj muñ ko te xam ni ker dana ñëw Abdu ki nga daan àndal ba mi naaj muñ ko te xam ni ker dana ñëw petit petit champion la petit petit champion la yal na la yàlla may yow ndam petit petit champion la ana arfan kafiya suwaane gi ko kelay wo sama foofe ga ñaawul yow sama foofe ga ñaawul yow ana abdu ronaldino pap job maanaam pilibo pilibo moom reelay wo pilibo kooku ñaawul waay chéri de ay ay chéri wadamay yi waay Papa Diop Papa Diop laay woo ki nga mi naaj muñ ko te xam ni kër dana ñëw tubaab bi moom daan na wax naan dis-moi qui est bi daan na wax naan dis-moi qui est ton ami et je te ànd bu rafet moom neex na yaay